Aïcha Azama Bamba Djilass Cheikh Diourbel Azama Bamba Djilass mooy bëri noonu moom ki nga xam ne moom mooy Cheikh Diourbel doomu Djilass ak doomu Diourbel Azama Bamba eh Azama wane ko na mu takk na ko doomu Djilass la te mbir Alaaji Paago fane o ya sama Papa Djilass wow wow, doole fu ndigil doole fu ndigil akare a ya sama Papa Djilass o ɓino Djilass waaw waaw a fi'a foto xoya warin a farin o ndat a yori boto kana fiya lang woni a soow